mais dëkk bi kenn liggéeyatul yéen xam ngeen ko dëkk bi mësul dëgëre nii parce que ku doon investisseur war a ñëw ñëwatoo yéen ñii ku ci am benn cent mille francs boo denc de côté di nga xool noo koy dépenser parce que tu ne sais lan mooy xew suba te boo xamul luy xew suba as tuut bi nga yor doo ko dépenser moo tax dëkk bi dafa tagga tembe tout le monde attend à ce que les choses se passent mais ngir yàlla na nañu dem élection fii lu nekk wax nañ ko fi Macky Sall bu mu fiy ñëw dañu ne woon mënul def 3 mois trois bu fayee salaire 3 mois Sénégal day fayit est-ce que Sénégal fayit na est-ce que Sénégal torox na il a fait beaucoup d'erreurs d'accord ak moom ci ni mu yore woon mais le Sénégal reste intact donc képp ku fi nekk président gëm naa ne bu la sénégalais jàppalee mën nga dem loolu dafay ànd ak question Ibou bi Diomaye fay li ñuy wax ci moom xam nga Sénégal on est dans un boo xam ne Euh, pour man joxuñu jeune doole bi nga xam ne moom la war a am mais dëkk bi nga xam ne ñun suñu texte yëpp fa lañ ko copier conseil constitutionnel France lañ ko jëlee président de la république France lañ ko jëlee ni ñuy tëggee gouvernement France lañ ko jëlee ni ñuy gérer suñuy finance publique France lañ ko jëlee ñun dama leen di tooñ sax ma ne leen même ñun France ci football France bu tuddee première division ñun dañuy tudd première division France bu changé tudd Ligue 1 ñun dañuy tudd Ligue 1 ñun lépp lu ñuy def te loolu ci génération d'idées bi ak ñun ak Diomaye li ñu war a changé ci la bokk mais France boobu tey ils ont élu un président boo xam ne bañ koy fal amul 40 ans amul 40 ans école nationale d'administration la génne fala la Bassirou Diomaye Faye génne France tey il nous présente un premier ministre qui a lan 36 ans est-ce que mat na ko sax donc ñaar ñi di jiite France boo leen boolee tey amuñu amuñu quatre-vingts ans et pourtant la France c'est l'une des plus grandes puissances du monde mais fii tant que demoo ba am quinze ans dañuy jàpp ne xale nga xale nga xale nga Sénégal la ñuy topp di wax xale nga amoo expérience ba nga xëy nag retraité loolu Sénégal rek la am mais il faut faire confiance à l'intelligence et à la force de proposition de cette jeunesse. waaw ah, waa Pastef lu ñu taxawal ba toyiti ah, ngeen yaakaar ni ay cuune lañ parce que wane nañ toll nañ foofu ça am na lu ñu xam am na lu ñu mën lu ñeneen ñi amul et booy wax booy xool kii fi nekk tey président Macky Sall nga xam ne mooy def 12 ans di dem Macky ban ban âge la nekk premier ministre en 2002 Macky Sall avait quel 41 ans Bassirou Diomaye Faye moo ko magoon il a traversé 20 ans avec des responsabilités Idrissa Seck bu muy nekk premier ministre il avait quel âge 41 ans 42 ans ñun on a des ressources humaines yoo xam ne il faut si appuyer sans être dans le génisme sans être contre les vieux mais on doit prendre le meilleur de chacun d'entre nous man du ma jàppale koo xam ne dama gëm ne mënul nekk sama président parce que bu nekkee président dafay doon sama kilifa sama kilifa dama koy tànn loolu mooy logique politique mooy loolu loola xam ne moom laa gëm te nag wax naa leen ku fi nekk président mais tu auras besoin des gens extrêmement bien formés pour jàppale la et ce sera le temps de la concordance concordance boobu ñuy wax gëm naa ne ci lañ jëm Sénégal mënuñu ko tabax ci lu dul concordance